asalaamaaleykum mbokk internet M7 TV dal leen ak jàmm ñu def benn récapitulation ci li gën a fës ci wàllum actualité ci bisu tay bi di lundi 29 août 2022 dañ koy dooree ak lu ñëwal assemblée nationale ak li nga xam ni moo di quatorzième législature ñu war ko amal le 12 septembre bi ñu a jëmmal foofu ca assemblée nationale ki nekk en pole position maanaam ki gën a ràññee ki war a mën a jiite loolu nga xam ne moo di assemblée moom lañ génn ginnaaw loolu kii di Pape Diop tamit ay kàddu doon jóg di wax kan moom moo jiite lii di assemblée nationale na ni daal moom moomu di Pape Diop lañ bëgg a tabb mu daal jiite li nga xam ni moo di haut conseil des collectivités territoriales ba tey foofa ca assemblée nationale ak quatorzième législature bi ñu dëgmal ñii di opposition bi di wàllu Sénégal ak li nga xam ne moo di Yewwi Askan Wi ñoom tamit ngeen koy waajal bu baax a baax ngir mën a am ay place yu am solo foofu ca assemblée ngir man tamit di am temps de parole bu am solo ngir mën di défendre seen ginnaaw loolu ñu wax ci lu jëm ci lii di fleuve Sénégal nga xam ne jamono jii dafa commencé jur njàqare lu rëy rëy li waral mooy moom boobu dafa a tuuru maanaam mu daal di a baax te bu fekkee ne dafa daal di déborder mën na jir jooy wet ga ba tax na ñoo xam ne nekkoon nañ ca côté dëkk fa dañ daal di jóge foofu ngir wuti feneen foo loo xam ne na ko mentionné fan yi la ñu génn di xam ne ni jamono ji fleuve Sénégal daal njàqare bu rëy la jur ndax bu ci ndox taw tuuruwaatee mën naa jur jooy ju rëy rëy ndax day daal di déborder jaxase daal di indi loo xam ne si mën na nekk musiba laneen ci wàllum xibaar ba tey ñu wax ci defkatu ñaawteef yi nga xam ni ñenn ci sénégalais yi bu leen jàppee duñ leen yóbbu police léegi wante dañ leen di jàpp dóor leen ba parfois sax ñu génn àdduna ginnaaw buñ gisee koy na keneen a dóor ba moom itam mu daal nemmeeku fii ci sénégal wante sax ginnaaw loolu nemmeeku nan ni parfois dina faral di jul li nga xam ni mooy ay représailles maanaam ñay ànd ak ñoom faral di fippu di wane seen bopp ba di andi ay yàqu yu rëy rëy ci li xam ni moo ci dëkkuwaay yi lu ni sax moo amoon fële ci Kër Massar nga xam ne ñaari samba boy la yoo xam ne dañ doon cambriolé ban jàpp leen ginnaaw loolu dëkkandoo ya daal leen di yeew bañ dëgër ca noonu sax ñu daal leen di dóor ay dóor yu méttee métti wante benn waay boo xam ne foofu la nekkoon nekk benn tiktokeur moo daal di filmer mbir ma

méttee métti daal di am règlement de compte bu doy waar tamit ñoom ñaar ñooñu nga xam ni ñoo bokk bërëbu liggéeyukaay laneen ci wàllum xibaar ba tey ñu wax ci mbir bu doy waar bi nga xam ni dafa xew fële ca Pikine mu nekk benn maçon boo xam ni dafa demoon seeti benn xaritam moom daal ba mu demee ca kër ga benn mandarine la fa lekk ginnaaw loolu la daal di tëdd daal di génn àdduna foofu ca kër ga mu nekk mbir bu doy waar boo xam ni ma nga xew foofu ca Pikine ginnaaw loolu nag loolu di koor ba daal nañ koy ko ngi def ab autopsie ngir xool ba dafa lekk poison wala du ni mel ndax anam bi mu génn àdduna dafa daal di gaaw lool bu nu jógee ci loolu ñu dem fële ca Matam nga xam ne jamono ji ñu bari ci population ba ndoxu taw yi moo leen sonal maanaam inondation yi ba jamono ji ñenn ci askan wa dañoo mujjee génn seeni kër daal di dem ca école ya daal di fay fas dëkk ndax la nga xam ne moo ni seeni kër jamono ji ndoxu taw yi daf kaa nangu carrément mu nekk ay situation yu métti yoo xam ne ñoom population yi dëkk foofu ñu ngi ko jànkonteel ak moom jamono ji ñu toll ñu jeexale ko ak wàllum sport ak doomu Sénégal bi di Pape Matar Sarr nekkoon fële ca Tottenham moom nag ginnaaw boo xamee ni dafa am manque de temps de jeu bu a baax foofu ca Tottenham maanaam bi saison bi dooree ba léegi amul ne football na ko dañ koy daf di able mu daal di dem fële ca Italie ca benn club boo nekk ma nga jógoon fële ca Villarreal moom daan amal début yu am solo ndax match bi nga xam ne amal na ni ki démb dafa dugal benn but daal def ñaari passe décisif mu nekk début exceptionnel yoo xam ne moom mii di Boulaye Dia amal na ko foofu ca Italie ak këlëbam boobu di Salernitana ñu jeexale ko ak lu ñëwal coupe du monde bay xew fële ca Qatar nga xam ne équipe nationale bu Sénégal dafa war a amal ay match amical yoo xam ne da koy préparé loolu di coupe du monde ba kii nag di Augustin Senghor nekk président fédération sénégalaise de football ma nga yëkkati ay kàddu di xam ne ni match amical bii nga xam ni équipe nationale bu Sénégal war na ko jàmmaarlu ak ñi di Sénégal daana ci ciy dépensé lu toll ci 200 millions de francs CFA ma nga xam ne aussi kan yi coût bi sax mën naa gën a yokk ba àgg 300 millions mu ne koppar gu takkoo takk goo xam ni Sénégal di koo génne ngir mën a am li nga xam ni mooy ay match amical loolu moo nekkoon li fi gënoon a fës ci wàllum actualité ñoo ngi leen di jox dig daje ba badano incha allah di leen saako également ngeen di abonné seen YouTube bi di m xam ne mën ngeen di informer à tout ngeen jëf ba beneen